عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق Sang bi mënuñ xam lan mooy sabab bi tey tey ñu ngi ci xalifa Cheikh Mouhamadou xalifa bi moom naka jekk comme ni ngeen ko xamee fan yi ci gannaaw euh, am xalifa boo xam ne mu fi nekkoon euh, jiite ñu jiite mbooloo mi ñu nekkul ci gannaawam di liggéey ci ay programme ak ay tëralin yàlla ci euh, sañ-sañam mu jëlee ko bi mu ko fi jëlee yi tamit am xalifa bu bees bu ñëw loolu waraloon ñu war a ñëw ci moom jaayanteeg moom te loolu dafa am cosaan ci diine ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee àddina ki ko uutu nit ñi dañoo ñëw jaayante ak moom joxante ak moom loxo wan ko ne ko ñu ngi jël engagement exactement yi nga xam ne moom lañ jëloon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ñuy digal di ñu tere ñu nangu loolu mooy continuer ba moom mujj indi xilaat bi xalifa bu bees amee nag ñu ne tamit war nañoo ñëw beesal suñu engagement waaye mu tombeek ñuy waajal gàmm mu tombeek yi tamit ñu doon préparé benn programme boo xam ne ci ñetti at la war a diire maanaam ñetti at yi di ñëw lan la Ansar Dine war a liggéey parce que loolu tamit lu ñuy programmé la ci wàllu bu nekk nag wàllu infrastructure wàllu environnement wàllu culture wàllu nangam lu ci nekk ñu def ko ci benn benn benn téere benn document tënk ko boolee ci yaale nag euh, leen mbiram gàmm gi naka la naka la ñu war a tëddee euh, waxaat nit ñi ne leen Ansaru Diin lépp lu mu daan def ci gàmmu gi ci taxawaay ci financement ci organisation ci lépp mobiliser at nit ñi pour ñu def ko bi ñu defee loolu ba pare nag léegi nag war a ñëw nag ci sëriñ bi jébbal ko téere boobu wax ko information yi nga xam ne moom lañ am ak li nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon doxal loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne moo ñu moo ñu moo ñu yëkkati woon ñëw beesal suñu engagement parce que bàyyi mi ngi présenté woon ansaaru di ne mi ngi jugee ci man ansaar yi ilallah yontu yàlla Isaa bi ko yàlla yónnee dafa génn taxaw ci pénc bi ne kan ci yéen mooy jël engagement gëm suma projet bi pour ñëw jàppale ma ci ànd ak man exactement comme ni nga xamee ni nii tey réew mi président la ñuy fal mais président bu ñu ko saleen auto bu ñu ko falee automatiquement dafay soxla équipe soxla programme rëdd fi ñu jëm ak nuñ koy amee bu ko loolu tamit nag ci la jë am saan diin war a taxaw ci wetu xalifa bi loolu ci gàttal mooy li fi mën nañu am une idée si grande ligne yi nga xam ne tënk ngeen ko ñu bëgg ko waaw grande ligne yi li ma la wax la rek mooy euh, tënk dañ benn programme boo xam ne nii fii ak ñetti at waaw dem na ci wàllu environnement lépp lu jëm ci wàllu jëmbat ay garab ak environnement ak lim lim ëmb yëpp mais programme bi gën a teew mooy commencé nag participer ci jëmbat ay garab partout ci département yi Sénégal ñi ngi am programme boobu pour wàllu économie ñi ngi dajale ay projet daayira bu nekk war na joxe bu ah, war na joxe benn projet département bu nekk war na joxe benn projet niveau national war nañ joxe projet projet yooyu dañ koy financer bu ko defee pour nit ñi tamit am ci loo xam ne dañ ciy xëy muy dimbale taalibe yi waaye ñoom ñi koy liggéeyee tamit mën a am ci lu ñu xëy ba mën a continuer di liggéey liggéey bi ñuy liggéey euh, ñi ngi préparé ay don de sang euh, joxe nañ ndigal pour département yëpp def ko ñu ngi préparé ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko tënk fii waaye daal jàppal na lépp loo xam ne association dina ci yëngatu rek ci ak àddina bi lim soxla tey tey tey tey ñu ko def ci programme boo xam ne xaj na su ngeen ko ah, soxlaa dinañ ko mën a am luñ ci tënk jox leen ko pour ngeen mën koo xam. ak waaw loolu nag li ma ci mën a wax mooy wax nañ ci ak sëriñ bi am na décision bu mu jël waaye daf ne nañ ko wax ak porte-parole moo ko war a annoncé donc man du ma mën a sañ dévaler ko fii. damay bàyyi porte parole bi moom dina ko dina ko def. sëñ sëñ bi peut-être euh, sëñ bi si biir salle bi wax nañu tamit lépp luy nomination wala poste yu nekkoon ci jamiatu ansaaru diin moom confirmé na ko. waaw waxut ansaaru diin rek moom dafa wax ne maanaam lépp loo xam ne sëñ Cheikh xalifa bi passé tegoon na ko képp ku amoon ci moom confiance moom it am na ci yow confiance parce que loolu mbiram dëkk bi la mbiram état la maanaam ci misaal daf continuité la. ku amoon ci yow confiance am ne moom jox na la confiance ku mu santoon liggéey bàyyi na la ci sa liggéey yow mu des nag yow sa engagement nga jël ko pour liggéey moom dafay ñëw pour jàppale la ci sa engagement boobu ak sa liggéey boobu pour nga continuer. prix Cheikh Al Islam ak euh, li nga xamante ni moom mooy conférence internationale euh, jëm ci wàllum euh, jàmm ndax loolu tamit nekk na naan yoo xam yu ñuy war a defaraat. waaw kay exactement yaa ngi may fàttali sax parce que loolu bokk na ci li gën a loolu ñu ngi ko waroon def ci 2020 bi. mais xam nga contexte bi ak bii moo ko indi mais loolu incha allahu ñu ngi jàpp ne mille 2021 moom bu ñu yàlla mayee jàmm il faut dinañ ko taxawal parce que dégg nga ni ko sëriñ bi waxee léegi bu fekkee ne toog nañ ba heure bi am journaliste boo xam ne ñi ngi wax journaliste mais du rek journaliste mais nekkoon na ministre pendant lu ma ëpp juróomi at wala juróom benni at ci ci ci ci gouvernement Égypte moom moo ko oo di ko wax ne ko seen conférence internationale boobu ngeen defoon ci turu jamatu ansaaru diin ba léegi maa ngi koy fàttaliku waaye maa ngi fàttaliku baat yi nga xam ne moom nga waxoon ne leen ne américains yi ak tubaab yi yëpp denc leen seen arme yi bu ko defee jàmm am ci àddina bi kon mu ne mu di ko fàttali loolu ci la ñuy taxaw ak prix Cheikh al Islam pour pour bi nga xam ne pour pour euh, pour jàmm la te joxoon ko 2015 euh, euh, président Macky Sall. mu jël alal ju bëri dimbalee ko euh, conférence bi ba mu réussir mais ñu tuddee woon koy tamit Mohamed VI buuru Maroc loolu nag fi ne nii ci lañ war a xalaat euh, xam bii di ñëw ñan lañ ko kan lañ ko war a jox ak euh, kañ lay doon ak yooyu buñ ci àggee yéen ñëpp di ngeen ko xam. yéen a ngi waajal gàmmu bi ne am na lu crédit seen porte-parole ok au sujet de l'ONAS maintenant lan mooy message fort wu Ansaroudine lan mooy sa message fort. message mooy. taalibe yëpp mobilisé wu waat nekk benn bopp ànd xam ne Ansaar Din di moo ko tëral moo ko fi teg euh, te ndigalu Baye addina bi yëpp ci organisation ci booloo ci àndee ci ànd ci lay ci lay ci lay taxawee mais taalibe Baye tamit suñ àndee dajaloo takkoo ànd maa ngi koy wax maa ngi leen koy wax yéen journalistes yi ak mbooleem ñiy liggéey ci wàllu wàllu wàllu wàllu xibaar ak média ne war ngeen a dajaloo recenser mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci ñoo nekk ci ci wàllu googu defal defar seen seen tëralin wan fii lañ bëgg a dem fii lañ bëgg a jaar moyens yii lañ soxla bu ko defee ngeen indil ñu ko ñun ñu bokk ko ak yéen liggéey ko leen lu yëpp jëm ci organiser pays bi parce que luñ organiser wu bu dem kër sax kër benn kër rek soo ko abee soo organiser wu dépense bi organiser courant bi organiser kër gi ni muy tëddee ak ku nekk lim moom li lim moomut kër gi dafay tas rawatina nag taalibe yu toll nii ay millions yi millions yi millions il faut mu am yàgg ngeen a dégg Cheikh Ahmed Tidiane xalifa bi bi bi passé lu jiitu muy nekk xalifa daf daan wax ne taalibe bàyyi mel nañ ñu nekk am nañ lu nekk nekk nañ fure waaye li leen manqué mooy buum gu leen di takkee loolu moo taxoon moom bi mu ñëwee rek mu ne kon buum googu di leen takkee nag du dara lu muy ansa jëm jëmeetu ansaaru diin moo tax nag ansaaru diin boobu ci lañ taxaw nag pour gën koo redynamiser yéen yéen journalistes yi yéen économistes yi yéen ñëpp ci nekk ci sa domaine yaa war wax lan lañ war a def par rapport ak domaine boobu pour mu jëriñ pays bi pour ñëpp gis ci seen bopp. jërëjëf communication et investissement de la Jamiatou Ansaroudine niveau national. Euh, Monsieur Samb, vous avez été reçu par le Khalif de Medina Baye, Cheikh Mohamed Ibrahim Niass. Au sortir de cette alliance, qu'est-ce qu'on peut retenir Nous avons été reçus à l'issue euh, de notre séance de travail d'une de la Jamiatou Ansaroudine, la réunion du bureau qui était présidée par euh, euh Cheikh Mohamed euh, Ibrahim Niass, président national, et en présence des délégués venant de tous les départements du Sénégal. Euh, de la euh, la de l'audience était de rendre compte au khalife des résultats de nos travaux et de lui euh, confirmer notre allégeance et de solliciter son soutien pour la réalisation du programme triennal d'action et d'investissement. quelles sont les grandes lignes de ce programme? Cinq axes. Il y a un axe mobilisation, c'est l'axe fondateur puisque comme vient de le dire le président en langue wolof Euh, l'objectif principal de la Jamiatou Ansaroudine est de réunir les disciples de Cheikh Ibrahim Niass pour les organiser et les mettre au service d'un islam de paix et de développement. Euh, le deuxième axe est un axe euh, davantage culturel qui consiste donc à gérer les événements, les gamous, les ziyaras, mais également à s'investir dans euh, l'appui à l'éducation, à la diffusion du savoir, dans l'organisation également du prix Cheikh Ibrahim Niass pour la, pour la paix et de la conférence internationale hein, euh, dont nous préparons la deuxième édition. Euh, euh, L'axe suivant, c'est un axe économique puisqu'il s'agit de, euh, de capaciter, si j'ose dire, les, les, disciples pour qu'ils puissent davantage se mettre au service de, des idéaux de la Jamiatou Ansaruddin. Euh, l'axe suivant, c'est l'axe infrastructure. Il s'agit là de doter la communauté d'infrastructures qui lui permettent de davantage se mettre au service de l'éducation, de la santé euh, et de, toutes les, de, de, toutes les activités culturelles. Et enfin, il y a un axe est un axe transversal, c'est l'axe euh, euh appui, euh, administration, appui aux différentes instances, organisation, c'est ce qui, ce qui en bureau de nous de temps en temps en comité directeur. Voilà les grands axes de, du programme triennal et nous, qui ont déjà commencé à être mis en œuvre puisque, euh, comme vous avez vu, 2020, c'est une année particulière. Vous auriez dû nous entendre déjà parler de conférences internationales, de réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Ça n'a pas été possible en raison de Mais euh, très bientôt, dans les semaines qui viennent, vous verrez euh, la mise en œuvre de ce programme triennal d'action et d'investissement. Le Khalif a accepté votre allégeance Absolument. Le Khalif nous a rappelé que bien avant aujourd'hui, il était à nos côtés et je puis le confirmer puisque euh, il y a quelques années, alors que euh, nous étions à une autre station, il, était toujours à côté de nous, euh, à nous des, des conseils, des encouragements. il l'a rappelé lui-même dans son intervention. Et c'est donc euh, pour lui, euh, c'était pour lui une évidence euh, qu'il serait à nos côtés pour la réalisation euh, de, euh, de ce programme d'action. On peut avoir une idée sur les innovations de Mouloud avec le contexte de covid Une voie autorisée y viendra. le la Jamiatou Ansaroudine en tant qu'instance devant organiser le Maulid a euh, produit un document de plaidoyer qu'elle a remis au calife, qu'il a étudié, qui a certainement pris une décision et qui vous en fera part le moment venu, peut-être à travers, par la voix de son porte de cette audience, quel est Le message fort est celui de mobilisation autour de, euh, des, euh, du programme d'action déjà, mais également autour de tous les objectifs de la euh, communauté de Cheikh Ibrahim Nias. Et euh, c'est un message fort qui sera relayé, comme d'habitude, par le président national. Et euh, là encore, euh, nous ferons appel à vous de la communication euh, sous toutes ses formes Et euh, en relation avec notre commission communication, nous avons des messages forts que nous ferons euh, passer euh, par, vos, par votre canal euh, dans les semaines qui viennent. Le nouveau calife nous a rappelé le principe de continuité qui vaut dans toutes les institutions, dans la plupart des institutions. et ça ne l'empêchera pas de donner sa touche pour améliorer les choses, mais euh, il a rappelé que le principe, c'est la continuité. Je vous remercie,